en fait maa ngi lay suivre mais candidat yi boo xoolee ba xool chaque élection on voit que les mêmes paroles maanaam même wax yi la ñuy wax tu vois parce que Sénégal dafa toll foo xam ne dëgg boo xam ne tey jii nii kenn defatul confiance yi kenn parce que dañ ñëpp dañu jàpp lan benn philosophie nan ñoom ñëpp a yem politiciens ñëpp a nekk da wax ñeeg ñeeg te boo toogee sa nguur gi après doo def dara waaw. waaw comme d'habitude rek. Nous Sénégal dañu am habitude di déglu campagne et ay xam réaliser c'est le même cas que Macky Sall ñoo ñuy wax il faut commencer par le commencement on va commencer par dégager Macky Sall pour que les autres savent que un euh, politicien qui fait campagne il est là pour respecter ses paroles su ko deful ñu dindi ko. ah dama ko gisee moom vraiment kenn séduire ma ci moom parce que lu ñuy ñuy wax rek waxoon nañ ko ba pare vraiment man je préfère fi nekkoon ñu bàyyi ko fi rek comme commencé na liggéey affaire yooyu te am na yu ñu diggoon te mi ngi koy def kuñ fi falaat tamit li liñ fi wax doo ko def xanaa dangay def lu la neex rek mooy loolu. Ah, en fait man en tant qu'étudiant man xooluma ci. Euh, si le neex non non man damay xool lu neex waa dëkk bi li yoo xam ne tax avancé man si loolu laay on doit commencer par Macky Sall celui-là je ne veux pas éliminer mais sinon a une sortie. Euh, partie ba mu si gën a convaincre moi, Idriss Seck on dirait que Idriss est revenu à la raison quoi mais de toute façon on veut tout sauf Macky parce que Macky Sall vraiment c' est un président qui va ab dina jàngale ji suñu doom yi yu bon au lieu de travailler au lieu nga yow nga jéem a respecter sa bi ngay campagne li nga wax am respect ci nit ñi noonoo doo ko def léegi nag nga teg ci sa adversaire politique yi ñi nga xam ne liggéey moo war a tax nga gañe leen nga tëj leen ci kaso bi. utiliser ay instruments de l'État pour détruire ses adversaires politiques kooku waruñu mën ko nongul un président la parce que tout simplement il va donner une leçon pour bonne suñu doom di il est temps qu'on commence par Macky Sall Nous di campagne ñu savons que ne kenn bu dégager Macky les autres vont suivre l'exemple. arrivé en France Nicolas Sarkozy arrivé France François Mitterrand Moi, le président bi fa il travaille très bien donc il est temps de commencer président bu nee xam ne ne yow mii man sama mandat bii di ñëw liggéey moo tax ma euh, ma gañewaat ko du jàpp sama électeurs di tëj jàpp euh, ku la neex tëj ko di jël lu mel ne instrument de l'état pour tëj nit ñi donc euh, pour commencer mag Sall mi il faut ñu éliminer ko. non président moom boo koy fal da koy fal par son programme xool li la arrangé nga def ko ki la at ki nga xool candidat yi koo xamante ni programme am yow ñuy ci sa bopp. nga fal ko mais pas xool ko ba mu neex la rek nga fal ko loolu moom doxul. waaw quelque rek. Euh, parce que man li ma xoolee ba xool euh, Sonko laa si gën kii parce que moom laa gën a suivre waaw. tu vois man programme daf ma doy. ni ñu ko mën a waxtee maanaam Sonko dafa doon nit koo xam ne du question man moom si suis waaw mais bu ñu xoolee au fond programme man bu ñu ko expliqué teg ko même bu mu ñëwee fële tamit euh, cité bu mu jotee expliqué loolu noonu doy nañu suñu xel ñu ñëpp. ba en fait euh, lu mu wax ma maanaam tey dëkk dafa am yoo xam ne nit waru ko faussé wu mooy lan santé éducation ak lan ak tout ce qui est social dëkk ñett yooyu noonu mooy fonctionner dëkk dama dafa nekk nit koo xam ne xam na affaire yu bëri te toog na convaincre ñu wax ñu si affaire yu parce que boo xoolee yenn affaire yu bëri Sonko moo ko génnee moo ko découvrir moo ko mën a taxaw carrément si télé wax ko nit yi mën a xam mais bu ñu ko ñeneen la kenn ko xam waaw moo tax daal man daal je considère au Sénégalais maanaam bu xool nit ki mu ngi lay jox xaalis wala nit ki neex na la rek mais maanaam kooku ngay votel toll nañu stade boobu stade bu ñu toll mooy maanaam tey ñun ñun war a xool loo xam ne suñu dëkk loolu moo koy jëmal kalam ñu def ko ba loolu laa gis. waaw c'est-à-dire ñun Macky Sall daf ñu nax ba pare maître Ablaye Wade moo doon président mais bu mu buggee laa suñu constitution te moo ñu jàngal démocratie dañu bañ.